sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamina wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin seydina muhammadin al makin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ixwata al imaani wal islaam wal ihsaan wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki M-Media Group nooru daare ni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangu ñu suñu jaam yàlla te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc di jël niya boobu rek ak ziyaare bi di ko teg ci loxol kilifaak jataay bi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jottali ñu ko mboolem mbokk yi nga xam ni moom ñoom lañu seqal liggéey bi rek di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla gën ko yàggal ci suñu kanam bu baax a baax ba li mu fas yéene liggéeyal maam Xaadim Rasuul mu am kàttanam nga ko liggéeyal ak fekk ga ga ak xiwal ga dañu ñu ànd ko moom bi jay seydil wujud sallallahu alayhi kon tey xam naa suñu fatwaa tey ñuy xool laaj yi nga xam ne yi moo fi jot a ñëw rek luñ ci mën a leeral ñu jéem ko leeral bi ci kàttan yàlla ndibalam bi jay seydina muhammad sallallahu alayhi kon tey laaj bi ñu fi njëkk a am mi ngi jóge ci suñ Moustapha Thiaw suñu rakk jooju ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ndokkeelu euh, di ko ñaanal yàlla moom it mu gën ko defal tawfiix te it di ñaan ñaan yi muy ñaan moom itam ñoo ngi koy dégg ñoo ngi naan amiin yàlla yàlla nangu ñaan yëpp di jaay Seydou Roudjoub boole ko di jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sëñ Moustapha nag day laaj maanaam idda loolu ñuy wax idda te euh, soxna yi jagoob nga xam ne ñoom seen liggéey la day wax daal lan mooy idda ak euh, lan lañ ci jublu waaw waaye idda moom euh, ñaari jigéen ñi la war muy ki nga xam ne kii jëkkëram da koo fase maanaam dañoo tàggoo jëkkëram fase ko ak ki nga xam ne kii jëkkëram da koo jëkk wàcc liggéey maanaam jëkkëram dafa faatu ñaari jigéen yi daal mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñoo war a def idda tolluwaayam mën nañoo jàpp ne ñetti temps la maanaam ñetti étape la bu jëkk bi mooy ki nga xam ne kii jëkkëram la koo fase maanaam ni ñuy daalaay bëgg a wax xeet yi mooy ki nga xam ne kii day gis baax maanaam weesoogu ko ak ki nga xam ne kii dafa tollu diggante maanaam dafa ëmb ak ki nga xam ne kii dafa dem ba àgg na ci ay at boo xam ne dootul gis baax maanaam dootul fóot ñetti ñi mooy xeet yi ñiy dawu bu ko defee ki nga xam ne kii euh, mu ngi toll ci di gis baax dañ ne bu ko jëkkëram fasee day toog ba fóot ñetti yoon ñu ngi naan ñetti weer sax waaye ñetti fóot lay doon maanaam gis regal ñetti yoon su ko defee rek maanaam moom iddaam jeex na ñetti fóot nag mën naa mat ñetti weer mën naa bañ a doon ñetti weer keneen ki ci des muy ki nga xam ne ki dafa ëmb ñu fase ko moom itam saabu bu wasine rek maanaam boo amee doom rek moom itam lay daal di jeex ki ci desin mooy ki dem ba toll ci at boo xam ne fii maanaam gisatut baax maanaam fóotatut kooku dañ naa buñ ko fasee Euh, ñetti weer kooku mu ñetti weer lay toog doog a sëy ci keneen maanaam keneen takk ko kon ñetti xeeti euh, yooyu daal mooy yi nga xam ne ñett ñooñu ñoo ñoom ku ci nekk lool mooy euh, saa yu dafi muy yem su ko defee bu dee ni ki faatu la eh, ki jëkkëram faatu mu doon ñeenti weer ak fukki fan ak ki nga xam ne kii dañu ko fase muy nekk ñetti fóot mën nekk ñetti weer wala du ko mat ñuy laaj lan moo tax eh, ki jëkkëram faatu eh, ëpple ay fan ki nga xam ne ki dañ koo fase waaw foofu lislaam sharia da jàng jàngale njàng mu leer nañ mu am solo boo xam ne mii euh, dañ ko war a xam bu baax a baax xam ne lislaam rek mooy diiney dëgg ndax gis nga ñaar yëpp ci mën a doon muy ki ñu fase muy daw ak ki jëkkëram faatu muy daw maanaam ñoo bokk àtte ci lañ gën a jublu mooy euh, sàmm as aw askan sàmm ay doom ba maanaam ak jaxasoo du ñu am ba ku nekk kay waajuram bu dee ci wàllu góor gi la ñu xam kan la ñaari edda yépp loolu lañ ci jublu bu ko defee euh, bu dee ni ki nga xam ne kii euh, day iddawu ngir dañ koo fase ñu ne euh, jigéen foofu nga xam ne fii bu sëy góor maanaam fi la ndoxum maanaam fi la mën ni muy dugg ci biiram foofu dafa am kees goo xam ne gii mën yi moomu foofu lay nekk maanaam mën nañ ne ab appareil daal boo xam ne bi yàlla moo ko def ci biir ab jigéen euh, buñ bu sëyee ab góor man yu mi daal di dugg foofu waaye nag dafa am ay appareil boobu daa am ay kees yu bare bari nga xam ne man yu mu fa dugg su bokkut ak meneen man yu maanaam duñu bokk fu ñuy nekk li ma bëgg wax daal mooy jigéen ji euh, góor gu mu sëyal rek man yu moom nga xam ne mii moo jóge ci góor gi am na bérébam boo xam ne bi fa lay dem du bokk ak maanaam bu ko bu séyee ak geneen góor bu séyaate geneen góor itam góor googee moom itam mën day dem ci kees boppam beru ko mën yi moom nag ñu ne nit ki buñ ko fasee maanaam tension day wàcc wala mu yëg maanaam day am am na aw naqar woo xam ne lii day tax mën yi moomu day dëgër foofu mu nekk ci kees boobu ba du gaaw a wàcc waaye biñ ko nattee ah, man yi moom noonu muy dëgëri nga xam ne du ba gaaw a wàcc ah, bu demee ba am ñaari weer rek lu topp rek ah, naqaru soxna si mën naa ji yow wala mu wàññiku lool ba nga xam ne mën yi moomu dina yolam ngir mu mën a génn foofu tàqali kooku soxna si ba foofu set wicc nga xam ne benn mën yi dootu fa nekk bu ko defee suñ boobaa euh, bu ko keneen takkee maanaam du fa fekk menn man yu muy loolu muy wax ñetti fóot ngir ki ñu fase maanaam foofu naqar yu daal day tolloog ne day dëgëral man yu mi day jafandu waaye bu amee ñaari weer ak lu topp rek su tension boobu wàccee rek Euh, man yi moom day daal di wàcciw foofu daal di set waaye bu dee koo xam ne euh, jëkkëram dafa faatu maanaam xam nga kooku mooy gën a am aw naqar mooy ëpp aw naqar euh, bu ko defee man yi moom itam noonu lay gën a dëgëre foofu noonu lay gën a jafloo foofu mu nekk ci biir bi su ko defee charia natt ne naqar woowu muy am ngir dafa ngir jëkkër ji dafa faatu su dee ba am ñeenti weer naqar woowu dina jeex wala dina wàññiku bu baax a baax a baax ba nga xam ne euh, daanaka day wàcc su ko defee mën yi moom itam mën a yolam ngir wàcc euh, génn foofu moom itam mu daal di kon gis nga charia ni mu leere ak alxuraanul karim lii nag doon xam-xam yoo xam ne yii maanaam yéefar yu bare bari daanaka jaare nañ ci tuub dugg ci islaam ndax lii may wax nii am na docteur mën nañ ne ay ab tubaab boo xam ne bii ab docteur laan doonutoon ab jullit ab yéefar laan waaye moom lii ma doon wax nii da ko jàng euh, ba pare xam ko xam ne nii lay demee léegi muy gëstu di gëstu ba gis ne lii alxuraan nii la ko tëralee te moom bi muy xam loolu wala bi xam-xam boobu di génn fekk na alxuraan jiitu génn xam-xam boobu lu bare bare bari bi jamonoy dox ba xam-xam bii génn ñoom ñu xam ko docteur boobu doonoon bi yéefar bi mu gisee alxuraan mu tëral ñaari xeeti idda yi maanaam dafa daal di daanu daal di xam ne lii ak dëgg la loo xam ne lu yàlla la jógee ndax xam-xam la xam ne lii moom yàlla rek moo ko mën a xam euh, kon mu daal di gëm ne na xam ne mii kat yàlla ko yónni tey alxuraan bi nga xam ne bii moom la indi lu wér a wér la ndax moom da ko jàng maanaam dali xam-xam bu bees ci ñoom boo xam ne bi nga xam nañ ko waaye ñoom biñ koy xam maanaam bi ko yàlla di génne ngir nit xam ko ba ñu koy jàng ñoom dafa fekk na alxuraan jiitu na leen ca wax ko lu yàgg yàgg xam-xam boobu di doga ñëw tubaab bi may wax ni mu di docteur euh, bi mu gisee loolu ci alxuraan euh, dafa daal di dem testé soxna comme li ma doon wax naan soxna si maanaam góor gu mu séet euh, man yi góor googu day beru ci benn kees boo xam ne bi foofa lay ne bu sëyaatee keneen moom itam mënu yu ci beneen kees lay dem euh, docteur bii bi mu testé soxnaam fekk dafa am ñetti doom bi mu xoolee mën yoo nga xam ni moo ne ci biiram jabaram jooju maanaam dafa gis ne mën yi nga xam ne ñoo jur doom yi maanaam moom kenn dong la ci jur moom mi nga xam ne moo jëkkëram waaye ñaari ci des euh, jabaram jooju da ko taxawaalu ba am ko mu gis ne kon lee alxuraan wax lu wér wér la euh, mu daal di koy gën a ak gëm mu daal di dugg ci biir islaam daal di gëm kon daal idda eh, daal loolu mooy solos li tax charia tëral ko mu bokk ca euh, fexe ba doom yi nga xam ne yii moom la góor gi ne amul jigéen gi du jaxasoo waaye tamit bu dee koo xam ne kii dafa jëkkëram dafa faatu mu di ko defal idda ne ne loolu itam day nekk euh, sàmm kóllëre goo xam ne kii moom na si da koy sàmm ngir sëriñam boobu ko jiitu maanaam jëkk koo faatu waaye tamit day sàmm euh, relation bi ñu amoon ñoom ñaar ngir diggante boobu mën a toog mu gën a yokk ak jaamu yàllaam ngir sëriñ boobu mu tàppaloo beneen laaj bi ci topp Modou Ngom moo koy laaj jëwriñu liggéey bi moom itam mi ngi laaj alxuloo maanaam loolu ñuy wax pasem sumeku maanaam pasem sumeku la ñuy wax waaye maanaam du pase ko wax du pase sax waaye sumeku la ndax sumeku mooy jigéen gi tàqalikoo ak jëkkëram ci loo xam ne lii soxna si moo ko sakku te fekk jëkkër ji moom nungu koo fase mu laaj ko dara ci alal bu ko ko soxna si joxe diggante boobu daal di tàqalikoo loolu moom lu lu ñu may nit ki la soxna yi may nañ leen ko sariya may na leen ko koo ci xam ne dem nga ba sa sëriñ boobu la nga nekk lan xañ na mënatoo nekk ak moom euh, dañuy may jigéen gi mu def loolu ndax jigéen moom du fase góor mooy fase jéem góor mooy fase nag te day am lu ko neexut ci jigéen ba tax mu du ko fase te jigéen moom sañut a fase waaye tamit mën naa am aw lu ko neexut ci kooku ñu ko sëriñam boobu ba tax mu bëgg a taqali ko moom loolu tax care may ko mu def summeku sunna ko nag ni mu ko waxee mooy firaaxu almarati aw firaaxu zawjati bi iwadin fa yaxudu zawju al iwada wa yufaarixu zawjatahu sawaun kaana al iwadu al muhra aw aksara aw aqalla mu ne summeeku mooy soxna si tàqalikoo ak jëkkëram ci euh, lu koy jox su ko defee loolu ko soxna si di jox ngir mu summeeku ci moom jëkkër ji jël ko ngir euh, weccee ko euh, lam ko joxoon su ko defee su boobaa jëkkër ji naa ko daa ko naan tàqalikoo naa ak yow maanaam loolu mooy doon tàqalikoo ga fase ga maanaam ngir seen diggante nekkatul léegi nag loolu nga xam ne lii may nañu soxna si mu jox ko jëkkëram jooju mu bëgg a tàgg xalikool euh, ngir mu bàyyi ko dootu doon soxnaam ne mooy bu fekkee ni cen nga ko sëriñ bi joxan moom la ñu d'accord soxna si jël ko jox ko ko wala bu fekkee ni sëriñ bi dafa laaj lu ëpp cen ga euh, mu soxna si wut ko jox ko ko bu fekkee ni sëriñ boobu dafa laaj lu gën a néew cen ga euh, soxna si wut ko jox ko daal lu mu ci doon moom su ko wutee jox ko ko rek fekk déggoo nañ ca su boobaa boobu diggante lay daal taqalikoo moom la wax summeku euh, lu ñu may soxna yi la nag la ndax am na xew-xew am ci jamono yonte bu mel nii seen soxna ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal dama bëgg a summeku ci sama sëriñ bii ma nekkal te euh, joteewuma ak moom dara nag defuma dara yi tamit euh, gisuma ci moom lenn itam loo xam ne lii euh, lu ñaaw la comme ni ko lu Modou Ngom laaj nga xam ne danay donte da ko daa bëgg a te amul benn sabab lii may nettali nii noonu la demee woon bi soxna si ñëwee ci Seydina Muhammad da ko ne man daal sama sëriñ bi dama bëgg a taqali ko moom maanaam summeeku ci moom waaye du dara nag dama daal daal sama xol daal moo àndatul ak moom léegi eh, Seydina Muhammad daal di wax soxna si ne ko ah, ah yow diw moomu nga bëgg a taqal kon wax ko turu sëriñam bi da ko bëgg delloo tool ba maanaam fekk sëriñam boobu bi mu koy takk ab tool la ko joxoon ak cen bi soxna si ñëwee ci yonente mu wax ko ko Seydina Muhammad ne ko ah, danga koo nga bëgg a delloo tool ba maanaam da ko ne rek xanaa ko lam la joxoon ak cen moom nga ko bëgg a delloo sox nga ne ko waaw euh, Seydina Muhammad daal di woo sëriñam boobee ne ko ah soxna si kat nee na dalaa bëgg a delloo tool ba nga ko joxoon ak cen te mu ku ngeen tàqali ko kon boo yeboo mu jox la ko da ngeen ko kon loolu luñ may soxna yi la ñu man ko def ndax bu ñu dem ci alxuraanul karim sax andi na ko ci aay bu leer leer yàlla di wax ne wala yaxillu lakum an taaxudu mimma aatitumuhunna shay'an illaa an yaxaafaa allaa yuqi allaa yuqiima fa in xiftumu allaa yuqiima xuduudallaahi falaa junaaxa alayhima fi maftadat bihi yàlla dane yéen góor ñi de su ngeen takkee jigéen ñi la ngeen leen di jox ci alal su ngeen di demee bay tàqalikoo ñoom daal euh, waratu leen koo jël maanaam tam waratu leen ko fayu ngeen ko war a bàyyi rek mu dem waaye nag su ngeen demee ba ab xëccoo nar caa am ba ngeen di def loo xam ne lii neexul yàlla ci seen diggante kon ne bu soxna si bëggee summeeku gii te mooy mu joxe dara jot ca boppam ngir ñu bàyyi ko ne ne jot googu muy jot boppam moom soxna si du ca am bakkaar waaye yow mi ko jëlitam bu boobaa doo ci am bàkkaar yow sëriñam boobu nga xam ne bii euh, dalaa jox dara ci alal ngir jote ko boppam euh, ngir mu summeeku ngeen taxal ko mooy fala junaha alayhima fi maftadat bihi kon loolu alxuraan wax na ko mu leer nañ ñu may ko soxna soosu nga xam ne sii dafa bëgg summeeku lu mën a nekk la te noonu rek lañ koy defe yeneen laaj yi ci topp al ustaas Badara Njaay moo ko fi yónnee sëriñ Badara Njaay laajamu jëkk day laaj ne maa xukumu man wajaba alayhi xuslul janaabati walam yajid makaanan yaxtasilu fiihi suñ bada day laaj koo xam ne kii daa war a sangu farata maanaam daa yor sobe janaba war koo sangu waaye amul benn béréb boo xam ne bii mën na faa sangoo kooku nan lay def dañ ko naan yantaziru xataa yajida makaanan illaa an yaxaafa xuruujal waqti lissalaati fa innahu yantaxilu ila tayammumi kooku li li jëkk dib àtte mooy dañ ko naan na xaar tey wër béréb boo xam ne bii mën na fa sangoo bu fekkee ne mi ngi wër loolu nag béréb bu mën a sangoo dem ba waxtu wi di bëgg a jeex maanaam waxtu julli wi di bëgg a jeex te amul béréb bu mu sangoo Euh, attem bu jëkk mooy na tiim te dem julli maanaam loolu mooy attem bu njëkk dañ daal bu wëree wër di bërëb bu mu sangoo ba waxtu wi di bëgg jeex waxtu julli wi ne nañ na tiim te daal di julli wa yumkinu an yartasila min xayri an yatajarrada tajarrudan kaamilan nee na ñuy tamit may nañ ko moom moomu amul béréb bu mu sangoo buy mu sangu waaye buy sangu maanaam du summi ay yéreem yépp maanaam day bàyyi béréb bi nga xam ne bii mooy sabe mooy awra wi maanaam daal mu euh, muur li tàmbalee ci euh, ndiggam maanaam ab jumbu xam ba ci wóom yi mu wut morceau yére bu mu ko muuree ne eh, loolu may nañ ko ko moom itam maanaam buy sangu mu def loolu maanaam muur li nga xam ne lii mooy awra wi su boobaa nag ne su ko muuree fa yastura ma bayna surati wa rukbati bi izaarin wa yasubbu alayhi al maa summa yuammimu ma taxta al izaari summa yu'ammimu al-mar'a maa tax al-izar min jasadihi léegi ne ne dañ koy day wut benn euh, morceau bu mën a muur lu ci jumbax bi ba ci bëti oom yi daal di sotti ci kaw morceau boobu ndox mi ba mu tooy daal di dugal loxoom nag ci biir yaramam moom daal di raxas foofu nga xam ne fii moom la muur su ca àggee ca sangu ba lii daal ne moom euh, su demee euh, ba euh, ñàkkam pexe yi benn béréb nii itam may nañ ko maanaam mu sangoo ji fa in wajada makaanan yumkinu fiihi alxuslu bi haatihi alhayati wajaba alayhi alxuslu ne ne bu amee béréb boo xam ne bii daal nii mën na faa sangoo maanaam mu muur awraam woowu comme noonu ñu ko ko waxee raxas ko noonu ñu ko ko waxee ne daa wara a euh, sangu wa ilam yajit shuria lahu tayamum waaye nag bu ko amut bu boobaa daal ne day tiim waaye du jàpp day tiim julli ndax noonu na la ca njëlbéen day tiim su fekkee ni euh, amul béréb bu mu sangoo ba waxtu wi di bëgg a génn su demee ba gis nag maanaam mën a muur awraam woowu ci foofu mu wax noonu sa raxase ko noonu mu koy raxasee mu daal di koy def noonu sangu waaye bu mënta am loolu itam ba tey nenañ daal na daal di tiim beneen laajam bi mu ngi laaj kam sanatan aashan nabi beneen laajam bi day laaj kam sanatan aasha nabiyu sallallahu alayhi day laaj seydna muhammad ñaata at la dund ci kaw suuf ne nañu aasha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam thalathatan wa sanatan seydna muhammad ne nañu bi muy wàccab liggéey juróom benn fukki at ak ñett la am ne fi sanati thalithata ashara lil hijrati yowmal ithnayni athani ashara min rabiil awwal bi mu wàccab liggéey mu ngi tombeek di gàddaay gi amee fukki at ak ñett waaye doon bisab altene euh, ci euh, ña fukki fan ñaar ci weeru Euh, gàmmo muy rabiul awwal li daal lañ wax ci wàll googu leneen juróom benn fukki at ak ñett la am Seydina Muhammad daal di wàcc liggéey loolu di tombeek ba gàddaay ga amee fukki at ak euh, ñett doon bésab altine fukki fan ci aw gàmm beneen laajam bi moom Bada Sëñ Bada Njaay mi ngi laaj mal farxu bayna al amali wal xidmati ñaari baat yi lay laaj lan moo leen tàqale mooy li ñuy wax al amalu wal xidmatu te ñaari baat yépp nun niñ koy waxe ci olof mooy liggéey lay firi maanaam jëf ak liggéey lan moo leen tàqale dañ ko na mafhumul amali kullu nashatin yaxtaaju bazlal juhdi li taxqiqi gaayatin wa yasiru fi lxaalib ilal mihnati lati yu maarisuha al fardu dañ ne bu dee ne al amalu la ñuy wax al amalu baatam al amalu mooy bépp taxawaay boo xam ne bii maanaam jëpp jëf joo xam ne nit ki da koy def te jëf jooju di aajowoo joxe ab coona ngir am loo bëgg ca coona booba te ne moom alaamalu li ci ëpp maanaam mécc lay doon moo xam ne nii nit ki da koy tànn mu doon mécceem mu di ko liggéey ngir di ca am dara wa tatatallabu haadihi almihnatu juhdan mutawaasilan muqaabilul xusul ala ajrin aw mukafaatin maaliyatin te nee gis nga euh, loolu nga xam ne nit ki da koy tànn muy métier mu ne métier moomu day aajowoo ànd ak coono bu méttee méttee boo xam ne buy continuer la di am saa su ne ngir mu liggéey métier moomee ngir am ca luñ koy fay nga xam ne dañ ko naa boo liggéeyee nangam lii ñu fay la walla ñu neexal la ci loo xam ne lii alal lay doon lii daal mooy li nga xam ne maanaam moom la ñuy askanale bu dee ni baat ak al amalu la kon daal mën nañ ne al amalu mooy métier lay doon moo ne nii nit ki da koy tànn jàng ko ba man ko di ca liggéey te boo di liggéey dangay ngay te waaye liggéey boobu ngay liggéey maanaam maanaam dañ la cay fay maanaam da ciy cay wut ak fay loolu moom la ñuy wax moom la ñuy askanale al amalu bu dee ni nag al xidmatu la mafhumul xidmati nag mooy al musaadatu aw al hadiyatu awil fadlu awil ihtimaam bu dee ni baatab xidma la nag moom dana mooy nit ki di dimbalaate wala muy joxe hadiya wala muy def lu baax wala mu yittewoo di def lu baax nee na bu dee daal moom dañ koy askanale jëmm yoo xam ne jii dañoo gis ne maanaam day def loo xam ne di dimbalaate la ca jublu wala muy maye dara maanaam mu doon hadiya wala muy def lu baax walla mu yittewoo yoo xam ne lii lu baax la di ko def kon bu ñuy xool diggante ñaari baat yooyu mooy al amalu wal xidmatu maanaam am nañu ko wuute ci maana seen maana maanaam seen baatin kon dañuy mën a jàpp rek ci tënk ne al daal mooy loo xam ne li nit ki da koy def mu nekk zahir doonab liggéey waaye su ko liggéeyee ba pare dañ ko cay fey waaye bu leen ni al la nag mooy loo xam ne lii nit ki da koy def te yàlla tax waaye peeg yàlla la cey séenu ñaari baat yooyu kon bokkuñu bu ci nekk daal bu dee al mooy li nit kiy liggéey eh, bu paree dañ koy fay moom mu jëfandikoo al amal bu dee ni nag al loo xam ne lii nit ki da koy def te yàlla tax mu di ca yaakaar pay ak yàlla xam nga lee mu waxoon fee ne al musaadatu ndimbal xam nga ne du métier al hadiyatu bu dee danga joxe hadiya joxe hadiya doonu métier moo xam ne bi da nga naan dañ ma cay fay waaye tamit euh, al fadlu mooy ngay def lu baax doo def la lu baax ne kenn dama ciy fay kon gis nga ko buñ ko tënkee rek mooy lee daal def ngir fay ca la alaamal waaye bu dee bii la def te yàlla tax la ba lu la ca fekk loolu tax ñuy gis ne eh, Cheikhul Xadim nii bi nga xam ne bii dafa nekk liggéeykat ak bi maanaam xaadimul rasul la tudde boppam xaadimul rasul la doon waaye doonutu aamilul nga kon nga gis ne kon gis nga xaadimul gis nga sëñ Cheikhul Xadim ni ay mbiram yéeme booy xool buñ noon aamilu rasul te mu jóge ci alamal ak ni mu wuutee ak xaadimu rasul te mu jóge ci xidma nga xam ne gis nga ci xidma ne na la moom mooy looy def rek te yàlla tax nga di ci seenu peeg yàlla waaye bu dee nii amal la nag da ngay def ngir ñu fay la kon ngir nga xaadimu rasul yàlla nañu ko yàlla fayal ñu jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam béppam dafa mat beneen laaj bi ci topp mi ngi jóge ci Papa Ababacar ñu ngi Espagne ñu ngi koy ziar gën leen koo dégg PAM lim ñoo leen ziar bu baax a baax di laajte mbokk yi mbaa ñëpp ngi ci jàmm euh, sëñ papa ñu ngi dafay laaj man nasiya sujuuda sahwi xata daxala fi salaatin uxra koo xam ne kii dafa jamaj ci julli maanaam da caa wàññi wala mu yokku ca war na loolu ñuy wax sujuudu fàtte ko nag ba dugg ci geneen julli nan lay def xaala baadul ulama ida nasiya aw isa nusiya sujuudu sahwi xata taalal faslu lam tabtuli salaatu foofu jàngale ko te fexe yi dañ fee am ak wuutee Euh, dafay am ñenn ci borom xam-xam yi ne sujjóotu sahwi te mooy sujjóot boobu su ko nit ki fàttee mu dem ba yàgg day continuer loolu bàyyi ko loolu maanaam du yàqu julli ga am na ñoo xam ne moom loolu lañ wax ndax dañuy jàpp na jéem sujjóotu sahwi sunna la maanaam doonul farata maanaam doonul force daal mën nañ ko wax euh, ku ko fàtte ku ko fàtte ba nga xam ne da nga ko fàtte moom ba mu yàgg rek su boobaa dangay ngay wéyal julli ga rek waaye nag day tënku ci maanaam danga koy fàtte waaye kenn du ko tey di ko def ndax ak julli moom eh, luñ ne daj njuumte la ca bu di ko wàññi la wala ak yokk la su ko nit ki tayee def ko moom julli ga day yàqu moom baaxatut waaye kay li tax ñu naan sujudu sahwi mooy da ngaa juum wala nga fàtte ne nañ nag bu fekkee da juum wala nga fàtte bu yàggee maanaam julli ga jàll na maanaam baax na waaye ñeneen ñi dañ ne waxaala baamuhum in xaraja min al masjidi aada salaata wa minhum malik imam malik mii nga xam ne dañ ne moom ci ngërëm lañu war a dox ñoom dañu ne nit ki bu fàttee sujjóot boobu ba génn ci jàkka ji rekk maanaam dafa wara a baamu julleem googu kon daal ñaari gis-gis yooyu daal lañ ci gisagum ci fuqaha yi ñu wax ko ñële ne bu fekkee dafa dem ba yàgg lool julli ga moom na wéy rek baax na waaye ñii te imam malik bokk ca dañ ne bu ko fàttee ba génn jàkka ja rek maanaam day baamuwaat julli ga ngir nag ñu génn ci jeexe jaaxa yeeg yooyu mooy daanaka lu mel loolu bu amee ba yàgg noonu bañ génn jàkka ja wala mu yàgg euh, ñu baamuwaat julli ko daal day mel ni muy gën a dal xel mooy taxin nga génn ci ay jeexi jaaxa la itam ñu wax ne bu yàggee julli ga yàqu ci boo ko gëmee topp koy ba tey noonu la ndaxte sëriñ na wax ne dañu wuute nga xam ne gii moom la sama borom xam-xam ji ci xeet yi di wuute noonu la ne loolu yërmande la di yàlla defal xeet wi yal nañu yàlla defal tawfiq bi jay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin Hallelujah.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 sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey